sant yàlla euh, dañ fi ñëwoon tey Mermoz pour euh, mën a constater lii di euh, avancement des travaux routiers may ci sant yàlla parce que maa ngi ànd tey avec monsieur Alioune Tall di maire wu Mermoz Sacré-Cœur pour mën a constater liggéey gi lu ñu njëkk ñaawlu mooy retard bi parce que ba ma fi njëkkee ñëw weer ci ginnaaw dañu commencé woon liggéey gi ba ma ñëwee tey pour man sax dinaa fekk daanaka liggéey bi yëpp mët na mais ñoom ni ko gisee mooy daanaka nawet bi daf leen daf leen indiloon ay jafe-jafe ba liggéey bi ñu daal di ko di ko arrêté ma ne leen peut-être du ma technicien wante lu ma xam am na yeneen société yu nekk biir dakaar yi liggéey te liggéey nañu pendant hivernage bi ñun waa mairie de Dakar lu ñu mën mooy lancer marché moo tax ñuy ñaax waa DCMP ak waa RMP nañ ñu jàppale. pour que ñii di gagner marché yi ñu mën a être sûr que ñooñu ñëpp ils remplissent les critères pour mën a doon société bu mën a gagner marché mais exécuter marché parce que nga gagner marché loolu c'est une chose mais nga bañ ko exécuter wala nga koy exécuter selon ce calendrier kooku day daal di causer ay désagréments day causer ay désagréments te tamit day daal di euh, remettre en cause la crédibilité de la ville de Dakar te euh, ku bëgg liggéey dëkk bu mel ni Dakar Euh, wax dëgg yàlla dina xaw jafe ngay taxaw ci ay détails yu mel nii revêtement donc euh, ñaax nañ leen wax dëgg yàlla ñu gën a xoolaat seen taxawaay gën a góorgóorlu ci liggéey ji parce que population yi fu ñuy xaare du ci euh, ay détails yu mel nii li ñuy xaare mooy nañu liggéey jàllale jaar ci leneen donc ma bëggoon tamit lancer toujours un appel à la DCMP à la RMP ñu mën ñu ci jàppale parce que tey am na société bu nekk Médina te maa ngi jégalu maire de la Médina di jégalu askanu Médina société boobu ba mu gagné marché ba tey mënul démarrer mënul démarrer te soo ko annulé pour nga reprendre marché bi beneen procédure la te ku ko wax dëgg yàlla daf ñuy pénaliser e je veillerai personnellement à ce que cette situation ne se reproduise plus parce que naam dëgg la ARMP ak DCMP ñoom ñooy gendarme code des marchés wante ñun mënatuñu nangu ay société di dugg di compétir ci ay marché de la ville de Dakar yooyu te heure euh, liggéey su jotee ku nekk daal di indi benn excuse pour mën a justifier son retard donc loolu c'est des choses à dénoncer parce que ñun euh, lu ñuy liggéey nii mooy suñu warugar dañ koy liggéey ak alalu askan wi te alalu askan wi tamit wax dëgg yàlla ñu ko jëbbal ay nit te ñoom en retour lu ñu noo askan euh, askanu Dakar ñuy koy ñu koy liggéey selon leur selon leur bonne volonté wala selon leur désir euh, radata donc euh, loolu yëpp c'est des choses à à rectifier donc euh, loolu moo nekkoon kàddu yi tànk yi tamit moo nekkoon tànk yi ñëw nemmeeku mbokk yi xool tamit ñoom nu ñuy gisee liggéey gi te fi meer Mermoz fu ñu toog tey nii fu ñu taxaw nii plus ou moins mooy point le point le plus ba de Mermoz donc ndoxu taw bi yëpp fii lay wàcc. donc amoon na benn canal bu doon capter ndox yooyu di leen doon yóbbu ndox jooju ci géej gi. canal boobu tey euh, dañ ko fat donc jot nañu waxtaan ak euh, euh, yenn responsable yu nekk ci tracé yu canal bi pour expliquer leen qu'il faut qu'on règle cette question d'évacuation des eaux pluviales donc sàkku naa ci maire u Mermoz Sacré-Cœur bëgguñu fi toj liggéeyu kenn bëgguñu fi toj tabaxu kenn wante tamit nit ki tamit mënoo génn ci titre foncier ñëw fekk lu mel ni canal bu nar a ay des eaux pluviales yow nga fàtte ko seulement pour sa confort ak sa cadre de vie personnel parce que yaa ngi causé ay yeneen désagrément yu nga xam ne day am ay dégradation de bien publics et tamit di créer ay inondations te yooyu yëpp mënuñu toog di ko seetaan donc je pense que le maire Alioune Tall aussi a compris les enjeux te incha allah tamit euh, fas yéene ci taxaw ak euh, technicien ville de Dakar pour que point ba bu nekk fii Mermoz que mu nekk un bon vieux souvenir sous peu de temps incha allah Tu veux dire quelque chose euh, nous sommes venus aujourd'hui à Mermoz pour regarder euh, l'état d'avancement des travaux. Et je suis euh, d'être accompagné par M. Aliuntal, euh, maire de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Je suis d'abord là pour présenter d'abord mes excuses aux populations de Mermoz, première porte et deuxième porte, pour les désagréments causés par les retards que nous avons pu constater ici à Mermoz.

Donc, euh, cela rentre dans le cadre de l'amélioration du réseau urbain de la ville de Dakar. Et euh, comme vous le savez, Dakar se veut aujourd'hui une métropole euh, moderne. Et pour cela, nous devons faire des efforts pour que le réseau routier déjà existant puisse être réhabilité, être mis à niveau, et ensuite éventuellement construire euh, d'autres routes et éventuellement paver aussi d'autres axes. Donc nous sommes là aujourd'hui pour pouvoir arrêter Euh, de façon euh, consensuelle et définitive euh, un calendrier qui nous permettra de pouvoir réceptionner définitivement les travaux de réhabilitation au niveau de ce que j'appelle l'ancien Mermoz. Parce que après euh, ce quartier de Mermoz, nous allons nous attaquer à la voirie de la cité Cœur-Gourgui, toujours dans la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Je voudrais seulement indiquer que nous sommes d'abord sur des axes existants, et euh, faire comprendre aux populations que les axes qui sont toujours sablonneux euh, seront peut-être pris en compte dans un autre programme. Là, nous sommes euh, actuellement en train d'exécuter euh, le reliquat d'un prêt BOAD, un prêt de 10 milliards. Euh, sur ce prêt, nous avons quasiment tout consommé. Il nous reste à peu près une enveloppe de 1 milliard 900 à devoir euh, consommer pour pouvoir épuiser toute l'assiette de ce prêt BOAD. Et ce milliard 900 sera concentré donc euh, sur le quartier d'affaires euh, de la cité Kurgogi. Euh, nous étions aussi en train de euh, d'évaluer certaines problématiques liées à l'évacuation des eaux pluviales. Parce que comme vous le savez, euh, le goudron est allergique à la, stagnation, à la stagnation des eaux, particulièrement les eaux pluviales. Donc nous avons plus ou moins trouvé le regard, pour ne pas dire le canal, qui devrait éventuellement évacuer les eaux pluviales vers la plage de Mermoz. Donc euh, quand on aura terminé de poser le goudron sur ce, euh, ce, tronçon, nous allons faire intervenir une autre société qui va, à partir du poste de santé de Mermoz, capter là-bas les eaux pluviales, les évacuer sur les pavés pour qu'ils puissent rejoindre donc euh, le canal d'évacuation des eaux pluviales vers la mer de Mermoz. Êtes-vous satisfait du niveau d'avancement de, des travaux euh, Sur Mermoz, j'ai fait comprendre à la société que je ne suis pas du tout satisfait parce que j'étais là il y a à peu près un mois, un mois et demi. Et depuis lors, ils étaient à l'arrêt. Ils ont euh, euh convoqué l'hivernage euh, qui a été à l'origine de l'arrêt des travaux. Euh, j'ai bien entendu ce ce plaidoyer, mais j'ai aussi indiqué à la société concernée que d'autres sociétés ont eu à travailler pendant l'hivernage. Donc euh, je lance encore un appel à toutes les sociétés euh, contractantes, euh, une fois qu'ils ont gagné un marché en bonne et due forme, d'exécuter leur part du marché. Je voudrais dire aujourd'hui que la ville de Dakar euh, ne doit pas un franc à un quelconque entrepreneur, surtout dans le cadre des travaux publics. Donc on ne peut pas, nous, être à jour avec nos décomptes, et avoir des sociétés qui malheureusement euh, enregistrent des retards qui ne sont pas du tout défendables et qui causent des désagréments aux populations. Aujourd'hui, nous avons aussi le même problème au niveau de la Médina. Je voudrais dire à cet entrepreneur à la Médina qu'il n'est pas question d'avoir gagné un marché et de rester les bras croisés. Les populations de la Médina ont besoin que leurs routes soient réhabilitées et je veillerai personnellement à ce que cette société démarre les travaux ou dans le cas contraire, que cette société assume ses responsabilités en quittant pour laisser la place à, à une autre société qui pourrait éventuellement nous réhabiliter les routes de la Médina. Parce que la société qui est à la Médina actuellement défaillante a commencé euh, les travaux ou était supposée commencer les travaux en même temps que la société qui se trouve actuellement à Grand -Yoff. Je voudrais aussi par ricochet interpeller respectueusement les autorités de l'ARMP et de la DCMP pour qu'elles puissent ensemble nous aider à pouvoir euh, éviter des situations pareilles. Parce que gagner un marché, c'est une chose et exécuter le marché en est une autre. Et vous comprendrez franchement que les populations ne peuvent pas se réveiller tous les jours dans leur quartier et être euh, euh, bloquées par du matériel lourd ou bien que leur cadre de vie soit défiguré par rapport à des travaux qui euh, malheureusement ne peuvent pas être canalisés dans, un, dans une fourchette de temps bien déterminée.